خلق الإنسان من صلصال كالبكار وخلق الزاد من نحج من النور تتبع آل ربك وتقوم بار ولا كل مستقيم يقول باربان تتبع ربك وتقوم بار وارد البحر ليتقوى بي بينهما مستقلتان فقطعوا أربعة قطبان يرجم الغدور والمرجان يا أربعة قطبان ولو ترك في البر كرهان وقطعوا أربعة قطبان كل من على ذا من ربك ذا الكرامين They got the... Uh, الله الرحمن الرحيم هدانا لكنه هدانا رسولك

وجعل لكم منهم حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله أم على إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في حياة الدنيا وفي الآخرة تقوا لهم إن إذا لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله ما في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء أن يتبعون إلا ظنا وإن هم إلا يعرفون والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ونهارا مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا أتخذ الله ولدا سؤاله هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن آخر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اسم ربنا سيدنا سيدنا مختلف وسابق الناس الذي وفي سبلنا من الجنة والناس ودخل ولا بعد ما قال ربنا مولانا من الشريف اللهم ارحمنا بالقران الكريم وانور لنا بالايات والذكر الحكيم اللهم ارحمنا بالقران الكريم اللهم قبل بجهر بيان أطلق من عذاب الجمال والكمال والمقصد بكل أبقال وارزقنا قتل من خدعه معديا خاحه مع الأحزاء والقلب والرجال ورب العالمين خير وشعبه الشمس والامان ولا تكتب لنا بالسر والدلال والطغيان ونبينا قبل المنايا من نور قبل والكسلان منا من أعصاب القبر ومن سؤال المنكر ونجيب ومن في الجيران وبيت الغناء والوصل واحفظ ذهابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر كتابنا وسيد لساننا بحسنات وثبت أقامنا على أسرع وكنا في سبيلنا الله على رسول سيدنا محمد الله الصلاة والسلام رب لنا بحالك يا دعاء اللهم اجعل القرآن ربنا بأقوالنا وجل أسناننا في الوحدة ومصباحنا في السلمة ودليلنا في الخير ومخزنا في السنة واختمنا بهم الشريف وعيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صل على سيدنا محمد خير الورى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد خير الورى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم doom yi ñu di ko dégg suñu yee soo moytuwul nga tax kenn mosu koo dégg nag moo tax ku ko dégg da ngay koy nekkal leen ñi yàlla baax rek bëgg leen seen njëriñ rek seen i waxe parce que ñu toog na fi sax taxaw xam dafa baax si lépp looy def démb ñu ngi sant yàlla di mooy lañu ci loo xam kii mbir mi jaar ci moom ku ko xam. da ngaa toog ak moom wala moo jaar ci moom war nga xam ne lu mu dox dëgg la loolu depuis ndawam la daf ko jubluwaale sept ans juróom-ñaari at si la wax ak benn yaayam ne ko yaay addina bii de kulluxum ci kër yi fi mu ngi tudde mu xam mu mu mu xamoon looy tuddee mu ne yaay xool ko moom yaa doon ne ah Mamadou Mbacke yow mu ne ah ah. daa ngi kon yàlla lu ñu defal tàndoor dee baax bu doon ku mag jekk rek woote diine nga topp ko sax mën nga sikki sàkk di ko waaye ndawam ba nu mu toobe ba mak mag sax toll si ay juróom benn fukki at mbaa juróom fukki at ak nangam am ñu xéewal yi mu bàyyi yëpp door dikka daan war nga mëna a bañ a teel ndax bu ko jóg rek toog di wax comme mag la am na xel xam ne daal dina demee muy wax kooku sax mën nga see tey xel mais koo xam ne ndaw moo doon di yàlla sosoo nañ ba mu dem ba mag xéewal wàcc ngeen war ko xéewaloo su ngeen ko jiitalul bu ngeen def ci xéewal mooy baabu Seydina Muhammad mooy bu teel bés tey tey tey jii ku am ku bëgg yenante nee na liggéey boo gis mu ngi ca tëj guddi tey jar ku nekk sax bañ ko nelaw xam ne boo ñibbee di nga am loo mën a def tëj bi la te jotaay boobu ñu toog ñëpp doon jëmma toog di màggal borom jëmm yi lu rëy la ci yàlla moo tax fi mu groupe ni ci ndigalam wax ni ñuy defee bu ci buñ si mooy dara yàlla yàlla musal ci seytaan mu ne moo ñaan bu ñu bu ñu ba ma pare ci liñ ma sant ndax xéewal la ci man yéene ma fi lu dul ne sa dëgg di jàpp loolu yéene moo tax sax mu aar ma parce que bu yéenewul loolu noonu dina am loo xam ne bu amee si tànt ni yàq waaye yéene bee nag li ngay dox yëpp loolu nga yéene dugg fi loolu def yaa xam mais sa digganteeg yàlla set na ndax li ngeen xam ne lépp lu am lu yéene amul taxawaay innamal a'maalu binniyaati jëf yëpp ci yéene la yonent bi moo tax loolu ñu koy yéenale ñu taxaw fa julli fa rek sëriñ fay taxaw leeral fa ñëpp xam ne noonu la demee ku neeru sa kër yi war nga ne aar na affaire moom ku ñu aar la dañ koo aar ñun nag li ñu am ni du yóbbu boo ko waxee ni sax mu ree romb la ndax miir ñu ko mësuñu koo dégg màggal yàlla moo tax démb dama kontaan ci leen la bi mu laa yaa Muhammadu Rasulullaah baat bi ko doon awoo mooy baat bi mu ñu dénk fii te moo doon tëj xam nga lu toll naa da yàlla kenn wu ci caaxaan te it gis nga laa ilaaha illallaah moo ci ëpp yéen ñëpp xam ngeen ne moo ci ëpp seetlu leen bu baax démb moom mu yaay la tëje ñëpp di wax laa ilaaha illallaah taraay li ciy topp mooy salaatu alaa nabi kii màggal yàlla la bokkul ak Mawdu délectation bokk ñu de ku ci wéetal yàlla tànn tey wéetal yàlla bu dëgg mooy kalimatu taqwa kalimatu tawhid muy laa ilaha illallah dem ba daf koy yëkkati fi nga xam ne fii kenn yoru alxuraan la te la ngeen di bu ngeen di firi na alxuraan bi di génn ngeen wax ko nit ñi mu yàlla ñu wax kooku mooy taxawaayu màggal yàlla loolu la waxoon fii jàng naa ko yoon yoon bëgg cee dugg yàlla benn ndax moomuñu suñu bopp te it jiitewuñu ko jiitewuñu ko ki ko jiitee la man topp te lu ko neex mu ne mu yonent moo jiite lépp moom mu Moustapha da ngeen da koy sikkar imaamina imaamina wasi na tila wasi yaa suñu njiit yaa suñu njiit yaa suñu wasi yaa suñu wasi noonu la nekk kenn mënu fee sampal la neex di leen il faut nga bàyyi ak sa bopp ñi lay dimbali fii du ku toog di ngay waxe sa coobare ginnaaw laa ilaaha illallaah boobu tar loolu ñëpp bokk góor ak jigéen ak xale di ko wax salaatu ala nabi mooy sa gis ngeen ko ci kër gi laa ilaaha moo sax dàkk na kenn jiitu ko fi te kenn du ko fi mujjee moo tax yonent bi nag boo ci ñaanee yàlla moo nangu moom la def lu mu ca teg salaatu ala nabi démb ñu tëjee laa ilaha illallah salaatu ala nabi day laaj nga toog ci école bi toogoo borom école bi mu jox leen cours góor gi jigéen ci sax taxul nga xam ko déedéet moo doon xul bu samaan man la xam moom lu mu samaan moo la sut moo la sut fop mën na ko xam ñun dañoo am chance donc li ma dénkaan nag tey kenn ku nekk guddi gi jar nga bañ a nelaw di daa boo tëddee tuuti sax si njëlbéen ji war nga mën a xeex na li des yëpp guddi gi jeex bu la kenn yee déedéet laa li ñu la yee yàlla ku mu xas ma woo ci boppam kenn waratu laa yee ndax gouvernement bi donc kuñ si invité woon tey nga dem nekk naa ne doo fa gëmmantu jëli na di jiite li gën a jafe am yonte moo gën a jafe ci ndax mooy kooku mooy kooku mooy waloolu yàlla Seydina Muhammad li gën a jafe mooy am te billaahi jaar nañ si ku ñu may yàlla ñun ñii war màggal ci moom li ñu ko def mën a rëy foog màggal ci moom rek lay jaar parce que cër bi la kon ñun yàlla nañu yàlla dimbali góor ak jigéen la ñun ñu am loolu am am dal di jéem wax sànq ci jàng alxuraan loolu la ne yàlla mën a bu ñuy jàng alxuraan bu ngeen dégloo ngeen noppi ma jéggal leen ma yërëm leen kooku yàlla ko xool boppam kon wax bi day aar kamil benn moo gën téeméeri kamil yi nanguwul de loolu lañ doon wax ndax comme si yàlla eh, eh, la ñu delloo ñu delloo te si yàlla ñu dellu si béréb bi yàlla. nit ñi dox ndigal bi bu mu dakk añ bi daal ñu nga nekk tudd yàlla bu añ bi ñëwee dafa mel ne ku doon desee mais tudd yàlla bi ak tudd na bi na nekk fu mu nekk